salaatu wassalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ridwaani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu bokki jullit yëpp di leen ndokkeel li def mooy sant tàmbalee ko ci lu jiitu sax màggal gi jàpp naa ne am na diir bu dul ca koor ga sax waxtaan yi njaay def yëpp nga xam ne fu jamono tollal fu ne dañ ciy waxtaan woo borom xam-xam ñi fi ci kër gi ndax dama fay def mbaar moo xam ne moomu mu ko murid ko moom bi ma koy bi koy door a defar dafa am gërëm ndeysaanam ñiy toog fi man mag ñi am ci ku ne ma mbaar mi di nii nga ko toppatoo nii ak ni mel xanaa dañoo waroon. di ko tëj te di ko bàyyi xel ndax balaa tilim mm, ndax kilifa yi fii ñëw ak nangam ak nangam ma ne koo defee ne moo moo tax ma defar ko ma ne ma gan ñi ma ne gan ñi gan ñi ñi tax ma di ko defar di mooy ñi jàng xasida ak alxuraan kon kon ko tëj te ñi ko tax ma def ko ñoom ñu taqal ko moo ma gënal moo moo gënal bañ a tax kon nag mbaar mi ñu xam ne defuma ko ngir. kudul kudul niti alxuraan yi ak niti xasida yi ak ñi waxtaane Sëñ Tuubaa loo tax ma def ko fi sama yoon newu ci dama ko def ngir yoon wi euh, waxtu wu ne nag may woo ñoo xam ne boroomi xam-xam la ñuy doon ci thème yu bëkkiwut waaye dara du ci génne sëriñ bi ak nangam sëriñ bi ak xam-xam sëriñ bi ak liggéey sëriñ bi ak yonent bi sëriñ bi ak noonu lu ci ne it dañu xool fa jamono toll ñu toll fa ak moom ak ña ko gën a xam man ko waxtaane ngir murid yi man cee jariñu ndax sëñ bi léppam xam-xam la euh, jàpp naa ne euh, kuñ ko won te jëriñoo woo ci ña ko won ñoo ko desee xam wala nañ la ko war a wone wane wuñ la ko waaye sëñ bi ku ko xam jëriñoo ko ku ko xamit bëgg ko Cheikh Abdul Qadir radiyallahu anhu dara wax ne nit ne di daa jubluwut sëñ bi ko bañ lool mu ne naan da koo xamut da koo xamut sëñ bi ko bañ kuñ ko won te wane la ko nañ la ko war a wane nga bëgg sëñ di suy umpale waaye kenn da bañ kon nag nan sonn ci wane sëñ bi niñ ko war a wane ngir nit ñi mën cee jariñ ndax jëriñ nit ñi képp ko fi andi woon wallahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri zanafin bila darati kon njëriñ la lu amul lor kon nag nañ ko yaatal ba ñëpp mën cee jariñ te wone ko ni ko war a wane loolu moo taxoon may tànn borom xam-xam ñoom itam ma di leen sant mënuma tudd kenn par kenn waaye ko ci ne lu mu la mën a fekkeel ak xataay bu mën a doon rek da koy bàyyi ñëw. am na ci yoo xam ne sax man du ma du teew ci jataay ba ndax bañ rek mu mel ne sama yëfi bopp bëgg ñu xam ne yoon wi lañ koy defal moo tax du ma ca teew sax euh, yenn yi mu mujj yi sax laay faral di teew waaye yu jëkk yi sax dama daa wax ne bu ma ci ne lëjj day mel ne sama mbir wala wane sama wala dara te yëfi murid yi nañ fa wax daan dem seen yoon waaye noonu lañ koy comprendre jàppal ma ko noonu di fa waxtaan liggéeyal Sëñ Tuubaa buñ soxla waatee ñeneen ñu ñëw xooluñ ma Sëñ Tuubaa lañ cay xool liggéeyal ci Sëñ Tuubaa kon nag Sëñ Tuubaa mi taxoon ñu dugg liggéey gis na ko te yàlla na leen fay lu kaw seen jort noonu it lañ ko jàppee bàyyiwuñ ko bàyyiwuñ ko ba màggal gi ñëw màggal gi egsi ma gis ne màggal gi day spécial ci màggal yi dafa amee taxawaay yu ci war nañoo jàngat màggal gi nuñ koy gàttandoo ak nuñ koy jàngate ndax am na ñu ni suñ gannaaw ñu nuy xool ndax jamono jim taseel fitu ñi fitu ay millions yi nit ci ab dëkk ci jamono ji ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa képp ko sañ moo ko ñeme waaye man booba ca jataay bu njëkk ba ñu njëkk a wax am na lu ma leen waxoon mooy bi ñu woo soxna yi si dëkk bi di jàngale alxuraan dañ war leen a wone ndax dañoo jàmbaare di roy seen bàjjen ya seen bar bàjjen yi di seen maam ya ndax jën kër Sëriñ Tuubaa gu amatul daara alxuraan ci jigéen ñi ñoom ñëpp dañ daa jàngale soxna Marème Jaxate yoroon na daara soxna Fatou Yaay Sëriñ Murtala bind na kaamil sax moom yoroon na daara ku mel na soxna Mbaye sëñ Moussa Lo nee na moom moo ma jàngal ba ci inna masala isa indallahi mu doon maa jox sëñ Mor Mbaye Cissé kon ñooñu daal xam la ñu yoroon loolu nag dafa jeexital ci sëti sëñ Tuubaa yi am ci ñu ñuy jàngale di góorgóorlu di mokkaloo alxuraan yu bari ay fukki at benn nga xam ne gone gu jigéen goo xam ne juróom-ñeent ba fukk fukk ak benn fa la ñuy toll mokkal bu baax baax ñu doon leen a jël yóbbu leen ci beneen école ñu jàngi leneen loolu dafa am solo loolu nag war nañ ko wane moo taxoon ma jëkkee woon loolu ci bi ñu jub gi ñu invité fi bokk yu bari soxna may mu sëñ Abdou Lahad soxna maam Mariam soxna maam Awa mu sëñ Basiru Falilu soxna maam Anta soxna soxna Awa Dem soxna Kunta ñoo ñëpp ñu ñëw soxna Baali ñëwoon na fi teewal fi sëñ Muntaxa moom itam jataay ba waxtaanee ci njàng meeg ni mu demee lépp ak ña ca mokkal ak lépp jox leen ay kàddo ngir sant sant lee ko sëñ bi niñ def alxuraan bi léppam di alxuraan dama leen waxoon ne dañoo ne ci wàccaayu màggal jàpp naa ne bis boobu sax ci la sëñ bi def déclaration may leen màggal gi nit ñi dañuy ñëw ci jàmm fekk fi jàmm demaat ak jàmm fekk fa jàmm teguma ko fenn fu dul gëm sëñ bi wóolu ko sëñ bi laa wóolu wóolu goo xam ne wóor na ma ne kenn du ñëw ngir sëñ bi lor di la fekk day aj tawat ji sànni ko ci àll ba ña gëmul yàlla yor ko mu bàyyi ñun ñuy dunde sëñ bi ñu mucc ci tawat ji am na ñoo xam ne ba nëgg ni mënuñoo mënuñoo comprendre ne loolu ma naane ne xajut seen bopp te it nag dafa losigut xel da ko nangu moom da ngay gëm sëñ bi wóoru ko rek sa xel door ko nangu lépp juróom million yi nit ndax dëkk bi rek deux million personnes a ngi fi te màggal gi daanaka trois millions wala quatre dana fi ñëw te mën na nga ne sax booba conditions yi ñu doon dund metti na ndax dëkk bi yàlla nattoo noonu jamono yooyu ndox mi manqué na te ñu nee na ñooy docteur yi nee na ñooy docteur yi hmm? mi ak moytandiku gi ci ak set la laaj foog ngay set ba ñun ñëpp ñu góorgóorlu ci sensibiliser nit ñi wax wax ba sonn joxe masque joxe saabu wax ne nañu raxasu yooyu yëpp ñu def ci liñ ci war a def ngir ba sàmmoon teg seen waaye ndox mi manque manque xam nga sëñ bii nekk def leen li ngeen di def lépp te bàyyi maag samay taalib ak sama dëkk ñu def formalité yëpp di ko déglu mu jaar ca kaw dàq tawat ji mu dem day mel ne safar la safar ci boppam la tawat ji doon nekk. daa egsi rek mu wàcc lii am ci kaa ci senegal ci safar mës am ba taw a ji tàmbaleeg léegi boobaag la ay dix set ak vingt ba bët bu yeggut huit yooyu yëpp ngay ba la ko jiitu kenn xamul nu mu tolloon màggal gi jàll ñu ne nañ nekk fukki fan ak ñeent ndax ci li nga xam wàlle na wala wàlliwut waaw tey woon xool ci première safar première safar la màggal gi tàmbali woon tàmbali ci fukki fukki fan ak juróom-ñett première safara jallaw jallaw ji ci dëkk bi mbale mi coow li jaxasoo bi bu doon bu doon luy wàlle booba lay wàlle balaa màggal gi ñu gis kaay ah xëy ñu bàyyi leen rek ñuy natt di natt màggal gi jàll ñu ne ci def fukki fan gisuñ dara gi Touba set wecc ñu xool ñëpp ànd nangu ñoo xam ne dañ ne mënuñu koo dégg loolu xel nangu ko dañ leen koy jéggal ndax. <laughs> dafa am loo xam dafa romb xel Sëñ Tuubaa mbirum dafa romb xel waaye loolu dafa aajo ñu taxaw seetlu santale sëñ bi yàlla gannaaw bi ñu santee sëñ bi ñu santale sëñ bi boromam ci ndam li mu ko defal ci bis bii ndax bu leneen amoon nag ne xamum fu ñu jëm ñëpp a ngi taxawoon dina tunglu kon nag liñ deen séentu nag amuñu ko nan taxaw nu ndamu ndamu goo xam ne nag jubluwuñ ci ndam waaye dañ ciy jublu sant yàlla dañoo ndamoo Sëñ Tuubaa mi na am puukari woo ko sigéri woo ko sante ko yàlla loolu moo jëm ci màggal gi kon nag màggal nan sant nan sant la nañ sëñ bi boroomam waaye sant nañ sëñ bi itam kon nag képp ku ci jàppoon ci liggéey bi wàccaay màggal gi plateau yi ñu ci doon def ba ci bis bi bi mu jàllee it noonu dañuy wax ne dañuy dox ci baynal xadiimi wal maxdum kon dañoo génn ci sëñ bi ñëw ci sëriñub sëñ bi ndax ngërëmam lañ ciy wut jotiwuñ ci yonent bi de waaye dañuy dàkk rek bëggu sëñ bi moo tax ñu fonk gàmmu gi xam ne boo jógee ci màggal gi te fonkale ko gàmmu gi dana ci békk te mbégam rek lañ wut looloo tax na ma defoon ca safar ma ne borom xam-xam ni ñëwaat bu teroo ngoon gune nañ woo kenn ku mën a jàng xasida mu jàng ci xasida yi sëñ bi taggee yonent bi ci ay meloom ak i jikkoom ak siiraam bu kooko noppee borom xam-xam bu ñu naw bu jàmbaare firi ko ba ñii ci biir réew ak bitim réew ñëpp man cee jariñu da nga yéen ñëpp ngeen ko doon def yaakaar naa ñu bari sant nañ ci ndax ñu ko doon jot ni ñu ko war a jot loola di dox ba tey jii ñu door koo tëj. maa ngi sant it sama bokk yëpp nag samay mag samay rakk ak bokki teel bi yëpp ak seex yeeg ñi doon fekk sa waxtaan bi ñëpp di teewlu di fi taatan lu jëm ci sëriñ bi rek ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam sama bopp yi ñoom ñëpp rek maa ngi leen di sant ndax mënuma leen a fay bis bu ne rek damay am ku may koy jagleel ci waa kër sëriñ bi mu ñaanal si mbooloo mi waaye kum ci man a doon rek bàyyi nga lépp ñëw. fekke si ko booleeg wax ju rafet ànd koog noonu kon nag sëriñ bi tax rek euh, noo leen di bàyyi moom mu fayal lu leen. bu subaa ñu door a jëm ci bis mag bi bis mag bi ni muy demee ku ne da koy def fa nga koy def xuru Mbàkke laa ko doon defee waaye jamono yi ren moo tax ma far ko defee fii ngir jàppandil nit ñi nit ñi dikk gi hmm. fii ci Madiana laa koy def waaye teewul nag bu subaa ca ngoon danaa dem xuru Mbàkke ngir bañ koo neenal siyaare ji sëriñ ba fa ne ma mës a dégg sëñ Chouaib bu wax ne dafa gis ci gént ñu ne ko ku fas yaari ñu jéggal la muy sëñ Abibullahi rakk sëriñ bi kon nag ku am kàttan nag man faa dem dem siyaare te del si gàmmoo fii ci ñi fi daa waaye daal man gëm naa ne te wóolu naa ne fu waaye di gàmmoo ci Sénégal ak fu mën a doon ci àddina nga tàntal yonent bi te sellal ko te def ko ci sunna sëñ Tuubaa dana teew ci tànt ba amu ci lu may nattu sax ndax li ko yàlla may fu nit mën a ne mën na la faa fekk doonum sëñ Tuubaa mi mu doon loolu dara ci loole moo xam ne yàlla may na ma ñëpp bu ñu àndoon faatu sama taalibe yëpp ak nuñ mën a toll ma toll ne seen i jëm ku ne ma fekk li si biir bàmmeel nangu la tontu la saw lay kon nag wan nañu ne ku ne ci foo mën a mu fekk la fa kon nag noo ngi sant ñëpp di sant euh, Bichri Bichri TV ak euh, Istikhama taxawaay bi rafet na lool yéen ñëpp seen taxawaay rafet na ndax boobaak léegi nopp doo leen ak Jawfal Fara bi nga xam ne dama ko sos ngir liggéeyal sëriñ bi wutuma ci bénéfice wutuma ci ñu di ma tudd sama yoon wu ci dama koo def jox ko murid yi ngir ñu di jàngale sëñ bi ak liggéeyal sëñ bi ci jàng ak jàngale loolu rek tax ma def ko kon nag mboolem ku ci yëngu rek ñi fi teew ñi fi teewul ñëpp maa ngi leen boole genn cant cant gi nag ma di ko teg ci euh, cantuk Cheikh mu taxa gi nga xam ne li may def lépp dama ko ànd ak moom ànd ko ci ndigalam te moom dane woon bis am lu ma koy tàggu mu ne ma jërëtu nga di ma tàggu ci dara loo loo narate lu ne rek jàppal ne jox naa la ci ndigal ndax wóor na ma ne sëriñ bi rek a tax nga di ko def waaw du nag may tàggoo waaye loolu la ma joxoon ndigal kon nag moom day jëmm joo xam ne yàlla nañ jariñu ci moom te bañ a loru ci moom ndax mes naa jaru ci moom waaye mes naa loru ci moom ndax fi mu ne dafay fu jafe ndax yàlla da ko may baax goo xam ne new mu mosuma gis ko ni baaxee waaye bëriwut ndax nit dana baax waaye day nangu day nangoo gis ku bon si mu ndax nag daa baax ba xamut bonu ko bon du ko gis du ko déglu te du nangu ko koon moo tax ku jóg defe ne mën nga koo nax naxoo ko sa bopp ngay nax waaye ku ne rek lu baax lay xam ci yow moom lay seede ci yow moom lay wax ci yow ndax la moom lay wax la moom la defe ne moo ne ci ñëpp moo tax nag euh, ku mat bàyyi xel la te xam ne mëni su ko ëpp xam-xam mënees ko gën a jub mënees ko gën a bëgg Sëñ Tuubaa mënees ko ëpp taalibe ku am kilifa gu mel noonu nag da nga ci ngoy te ñaan yàlla yàggal ko fi te de ko sakkanal nag te de ko sakkanal loo ko mat la ñoo ngi ñaanal jullit yëpp di ñaanal murid yëpp Sëñ Tuubaa boole na ci taalibeem yi mu gërëm nangu na surug taalibe defal na gàmmu guñ nangu defal na tawfeex defal na saadatu daarayni maa kifaayata amihima amin ya rabbal alamin subhaana rabbi ak sëñ Tuubaa